ban yéenekaay la ñuy tàmbalee tey. Aïcha dañuy tàmbalee euh, yéenekaay yi nga xamante ne xëy nañu vendredi bi 12 janvier 2024 ci Sud Quotidien Sud Quotidien nag lum ñu wax moom mooy dafa ñëwaat ci li nga xamante ne moom moo di mbiru parrainage bi ne parrainage bi euh, daanaka euh, chaque fois dañ ciy wax te du jeex mukk li nga xamante ne nag moom moo nekk genre match moom prolongation la. diggante Aminata Touré Abdourahmane Diouf ak tamit ki nga xamante ne moom moo di Bougane Gueye ñoom dañ ne ngañ ñi ñi nga xamante ne ñoo di conseil constitutionnel taxaw temm ne dañ leen kale ci lu nga xamante ne moo di parenage yi du dëgg du yoon ci suuf ñu si gis GRADEC société civile bi ñoom di wax ne dañu bëgg élection dem ci élection yoo xamante ne leer nañ mu bañ a am benn werante journal Le ñu ñëwaat na ci ñetti membre opposition bi di Aminata Touré euh, Bougane Gueye ak euh, ki nga xamante ne moom moo di Abdourahmane Diouf euh, di wax ne ñoom lu ñu bëgg rek moom mooy Euh, def euh, lu nga xamante ne moom moo di booloo ngir dem euh, dóorandoo xàccandoo ba pare ŋaññi lu nga xamante ne moo di màggu yu conseil constitutionnel maanaam ay njuñ njaaj yoo xamante ni conseil constitutionnel mu ngi koy def loolu le journal Le Témoin moom moom moo ñu ko wax ndaxte journal L'As di wax ne coup d'état électronique coup d'état électronique nag moom mooy def référence lu nga xamante ne di fichier yi nga xamante ne ñoom la ñuy dugal si machine ak clé yi ñu doon laaj euh, ñu wane ci ki nga xamante ne moom moo di Abdourahmane Diouf loolu journal L'As moom moo ko fësal ak Bougane Gueye ñoom ñuy symboliser ñi nga xamante ne ñoom daanaka dañ leen recalé lii nga xamante ne moom moo jëm ci parrainage yi euh, ci loolu nag Benno Bokk Yaakaar ñoom ñu ngi euh, mun naa wax ñu ngi naqaral ki nga xamante ne moom moo di Aminata Touré ginnaaw bi nga xamante ni moom dafa génn ni ay parewam dañ ko sàcc journal bi loolu la bindee bés bi la jour ñëw ci lu nga xamante ni moom moo soxal euh, ay kaa cas yooyu nag ñaar ñoo xamante ne seen tur kaa lay tàmbalee muy Karim Wade ak xalifa euh, Sall lan lañ wax ci Karim Wade ak Khalifa Sall bés bi le jour dafa ñëwaat euh, di wax ne euh, bu ñu sukkandikoo ci candidature yi nga xamante ne moo di Idi ak Macky Abdoulaye Wade doon ko contesté ñoom mosuñu fay impôt te ñoom mujj nañu nekk euh, te ñoom mun nañu wax ne euh, mérité wu ñu nekk président Abdoulaye Dieye professeur Abdoulaye Dieye ci mbir mi di wax ne euh, mbir mi pour départager ko ça dépend si position juge bi nga xamante ne juge bi noonu la noonu la taxawee ci loolu candidat boo xamante ne dañ ko wax mu fay amende dafa war a fay amende Abdourahmane Diouf di commentaire ci candidature Bassirou Diomaye Faye di wax ne Bassirou Diomaye Faye moom daanaka daanaka mu ngi ci goutte enquête le journal ñëwaat ci lu nga xam moo di présidentielle yu 2024 di wax ñaar fukki candidat ak benn yi nga xamante ne ñoom ñu ngi déglu euh, juróom-ñaari sages yu nekk conseil constitutionnel journal bi di wéy di wax ni ci processus électoral bi conseil constitutionnel daanaka dafay vérifier lépp di xool ndax candidat bi warloo na ak li nga xamante ne moom moo moom moo di ay loi Sénégal wante ngir kaw Karim Wade euh, enquête bi enquête journal nee na loolu faux débat la parce que dafa am ñoo xamante ni nee nañ Karim Wade beneen nationalité la am di wax ni suñu sukkandiku la am na yeneen jurisprudence yoo xamante am na ñeneen ñoo xamante ni amoon nañ yeneen nationalité teewul nekk nañu candidat journal bi tamit jox na kàddu ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye nga xamante ni dañ ko recalé mu ni moom dafa am naqar ak tiis loolu la enquête wax l'observateur ñëwaat ci suba gi wax ci lu jëm ci élection présidentielle yu 2024 di étudier turu Habib nga xamante ne waa famille Ousmane Sonko ñoom ñoo ko pare ne ngir mu mën a dem ci élection présidentielle yi ñu si wax Habib Sy moom nu mu tëddee ndax jokkeer la wala de ndax am na ay chance ngir réussir li nga xamante ni moom moo di présidentielles yi waaw wala déet di wax li nga xamante ni foofu la mëne ak li nga xamante ni euh, mënewul di laaj sax ba ci ndax Habib Sy moom euh, candidat de substitution la maanaam ndax dañ ko fi teg nii rek euh, parce que ñoom amuñu pexe loolu journal bi laaj bu mu samp la ci suuf journal bi mu ngi intéressé wu ci ki nga xamante ni moom moo nekkoon ancienne euh, député euh, tudd MS ñu def ay initialam ñu ne moom dafa bëggoon a dugg fi nga xamante ni moom moo di kër euh, Macky Sall ñu mujj ko wàññi ginnaaw bi nga xamante ni fuye nañ otoom ñu dem ci Walf Quotidien Walf Quotidien mu ngi jox kaddu ki nga xamante ni moom moo di Bougane Gueye ñu ni Bougane gay mu ngi artu mu ne moom dina Euh, def lépp euh, ngir dàq ñi nga régime Macky régime président Macky Sall ndaxte régime bi daanaka niruwul euh, lenn journal Vox Populi di ñëw ci ñu nga xamante ne moom moo di candidature Mamadou Diop Decroix mu bokk ci candidature yi nga xamante ne dañ leen a di job de Decroix di wax ni système informatique bu conseil constitutionnel daanaka dara dara baaxu ci lu tax moom mooy bépp candidat boo xamante ni am nga tort moom moo la ko teg ndaxte machine yi dafay bëggee opération yi dara baaxu ci système informatique bi daanaka dafa yàqu ba noppi technicien yi fa nekk daa mel ni dafa dañoo am dañu jàngul li nga xamante ni moom moo di informatique ñu ni fii Sénégal ñu ñun Sénégal dañuy oyofal lépp jël euh, mbir boo xamante dafa sérieux kenn du ko jox li nga xamante ne moom moo di gëdd loolu moom moo tax ñu éliminer candidature yu bëre mu ne 2019 amoon nañu ay jafe-jafe yooyu diggante 2019 ak 2024 temps boobu mënu lañ fi soppi lu bëre Sénégal dañoo waye di daanaka ñoom lu ñuy def lu ñu farlu ci lu nga xamante ne moom moo di liggéey te loolu du dëgg euh, du yoon mu nekkoon moom Mamadou Diop Decroix ci Vox Populi journal Les Échos ñëw ci lu nga xamante ne moom moo di forum civil forum civil nag di wax ci mbir boo xamante ne euh, mbiru cent cinquante milliards la si suñu xaalis soxal ay entreprise euh, yoo xamante ne day yëngatu ci or ñu ni ñoom dañoo war a fay état Sénégal notamment fisc impôt ak lu ni mel euh, te ñoom warlawuñu ak loolu état Sénégal pour l'instant journal Les Échos tamit ñëwaat ba léegi ci ne euh, li nga xamante ne moom moo tukkee ci gaynde équipe nationale euh, bu nekk bu ñu xamante ne mu ngi Côte d'Ivoire actuellement ñoo nañoo Euh, identifier nañ euh, chambre yi euh, fi mu ne nii sénégalais yi ñu ngi préparer seen match bi nga xamante ne moom la ñuy waajal lundi bi loolu les échos moo ñu ko wax ñu wax ci politique ak quotidien quotidien def ki nga xamante ni si unam Amadou Ba ñu ne Amadou Ba mu ngi wax li nga xamante ne moom la fas yéene def nee na dinaa créer deux cent mille emplois at mu nekk su fekkee ni fal ngeen ma président beneen fànn bi mu ciy wax ndaw ñi ne ndaw ñi Euh, nekkuñu ki nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ëllëg mais tey jii daar daar ñooñu lañ leen war a euh, may nopp di leen euh, bàyyi xel bu baax a baax jox leen lépp lu nga xamante ne moom la ñu bëgg ba kenn ki nga xamante ne doo bëggoon a am ay idée pour dem bitim réew mu bàyyi ko loolu quotidien moo ko fësal journal Le Soleil quotidien national Le Soleil di ñëwaat ci diggante Mauritanie ak Sénégal diggante boo xamante ne ki ko seex mooy président Macky Sall Mohamed Ould Maouloud El Ghazouani di wax ni relation boo xamante ne relation bu euh, bu particulière la maanaam relation boo xamante ne amitié euh, xarito ak euh, confiance euh, moom moo ko lal ci diggante ñaari euh, njiitu réew yi ci suuf journal bi mu ngi ñëwaat ci Amadou Ba nga xamante ne dafay dalal xel yi ngir dem ci élection présidentielle yu 2024 libération ñëwaat na ci benn mbir boo xamante ni daanaka ay raxas ay billets. ñoo xamante ne dañ leen jàpp mun naa wax ni kenn ki sax commerçant la mu ngi tudd Al Ousseynou Niang euh, am na euh, ñett juróom-ñett fukki ak ñett euh, moom dañ ko jàpp mu doon raxas ay billets yoo xamante ni mu ngi toll ci valeur trois millions d'euros moom nag ak ay xaritam xaritam bi nga xamante ni moom moo doon piloté lépp moom mi ngi woon ci France mujj nañ ko arrêté ci flagrant délit brigade recherche moom moo ko moom moo ko jàpp ñu fekk ci moom ci même jour bi am na keneen ko tudd Ibrahima Savané moom Nord Foire lañ ko jàppee ñu fekk ci moom cinquante millions faux billets euh, ci moom loolu lañ ko jàpp loolu lañ ko jàppee ñu euh, jeexale journal bi di stade quotidien sportif bi euh, di reveniraat ci lu nga xamante ne moom moo di CAN Côte d'Ivoire 2023 ñu ne ndax war nañu tiit ci lu nga xamante ne moom moo ñuy xaar ci seen notamment seen romlu bu bata li ñu daloon Guinée équatoriale ak euh, Gabon kan euh, boobule Sénégal euh, génnul sax premier tour ñuy wax ni ñu ngi jëm cay ay échéance di war a jongante ak Gambie lundi prochain lay doon xanaa rek ñaanal gaynde yi en attendant ngir ñu def préparation bu baax ngir mën a réussir CAN Côte d'Ivoire boo xamante ne dinañu mën a maintenir seen titre champion d'Afrique Aïcha loolu moo gënoon a fës ci yéenekaay yi ci suba teel bi am na solo Pape ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaye mbokk yi yéen itam di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam ñu ngi lay xaar ba defee nga ñëw fekk si ñu fii ci plateau bi. ci kanam. merci beaucoup Pape Malick Thiam mbokk yi euh, des leen ak ñun dañuy woyal xibaar yi a euh, gën a yaatal ak li nga xamante ni moo di la revue web euh, léegi léegi bu barke bi noppee rek ñu ànd ci Kajoor Cissé.